9h30 ci rajo Futur Media mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak programme mu RFM fas yéene ànd ak yéen seen émission xalaas mu di suñu journal fait divers fii ci RFM am mbégte mu yaatu nag di ci ànd ak yéen euh, ma ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane inspecteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama di la béggee bu baax a baax baax di kontaan ci yow. alhamdulilah di ziar passe partout Aba ñu ngi koy ziar moom tam di ko jàll mu comme moomu. Euh, wàññeeku di ñaanal yàlla def jàmm yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp nañu am jàmm. waaw yal na yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp am jàmm. na mm. ustaas yi am jàmm sëriñ si am jàmm. Mm. ustaas yi ak sëriñ si yàlla na leen yàlla may jàmm. amiin ndaxte ñooñu ñoo ñoo tee réew mi nag de. ah ci solo de. waaye ñoom li ne seen ginnaaw bari. Mm-hmm. waaw donc ñooñu il faut ñu leen ñaanal jàmm. waaw ci kër gi yàlla na yàlla may jàmm. amiin waaw maa ngi leen nuyu. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. di nuyu inspecteur maa sant bu baax. alhamdulilah di nuyu auditeurs yeeg waa Kaaru suba see Kaaru fajar xam naa tey moom. tey moom teel yow moom mooy loolu quoi dëkk bi daa tooy. Hmm. waaw siyaar nañ ñëpp. Hmm. bëggee ñëpp bisimilah. annonceurs yi li ñu wax. Euh, dinaa ñëw ci ñoom annonceurs yi li ñu wax. Ah. ci kanam tuuti ni nga ko waxee sànq Aba. passe partout Aba ñu ngi koy ziar moom tam di ko jàll mu wa ko moomu euh, wàccu liggéey di ñaanal yàlla na def jàmm yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp nañu am jàmm. amiin waaw yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp am jàmm. na mm. ustaas yi am jàmm sëriñ si am jàmm. Mm. ustaas yeeg sëriñ si yàlla na leen yàlla may jàmm. amiin ndaxte ñooñu ñoo ñoo tee réew mi nag de. ah nañ ci solo de. waaye ñoom ne seen ginnaaw bari. Mm-hmm. waaw donc ñooñu il faut ñu leen di ñaanal jàmm. waaw ci kër gi yàlla na leen yàlla may jàmm. amiin waaw maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. maa ngi lay xam naa tey moom. te moom teel a moom mooy loolu ko dëkk bi daa tooy. waaw siyaar nañ ñëpp. Mm-hmm. bëggee ñëpp bisimilah. annonceurs yi li ñu wax. Euh, dina ñëw ci ñoom annonceurs yi li ñu wax. Ah. ci kanam tuuti. ni nga ko waxee sànq Aba. moo di mm-hmm. baaxoo ànd ak ñun mais ah. nekk ci tiis ñi ngi ah. koy masaw bu baax. mbokk am mu fàttu. Mm-hmm. Euh, tey nee nga ma sa yaram dafa tàng. tey sama yaram tey auditeurs yi ñoo war a bég moo tax man la waxal. waxal ci maa ngi ñëw ci partenaire bi. ndaale. xam nga ne du ma ca yegg su ma ko doon waxit hors antenne lay doon. ndoy la indaale man la lii laa indaale kii nag ba nday wër dañ koy jox gaa yi euh, ñu sékorotoo ko ñu lanoo ko sékoroot <laughs> André André la ban waxaatal baat bi sékoroot ay ban déet waay nuñ koy waxee nuñ koy waxee sékéreetu sékéreetu boog demal ci Babacar a nga waxal ko jur nga waxaloo ko juróomi minute ah na la ko waxal mënu ko na la ko wax la <laughs> juróomi minute Babacar Fall waxal juróomi minute ah moom ah waaw li tàq ci moom daa bari. nee na làmmiñ bi waxal juróomi minute baa nga ci Zidane mu wax loolu la CEDEAO. déedéet waay. <laughs> uyu ma nga ne bàyyam lay wër. bàyyam lay wër. ayca dégg déglu ko. man la maam Kati Dieng ma leen di dund di leen yi ñëpp bien vrai damaa bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla tax retrouver sama papa waaw. njaa bi sama papa mu ngi tudd Assane waaw léegi ma bëgg ngeen dimbal ma ci sama waajur sama papa laa gisul man maay juddu 92 laa juddu ba tey presque am naa 28 ans waaw sama yaay mu ngi Casamance waaw wax na ma ne sama papa fii bu muy liggéey fon léegi bu ma juddoo ci la jël yóbbu ma Casamance ci la ñu dëggantewul ñu nar waaw si la ñu réeroo ba tey mais franchement bëgg naa ngeen jàppale ma ngir yàlla tax sama pap yaayam mu ngi tudd maam Kati Camara ah, sëram beneen bi Kiki par rapport sama yaay nu ma expliqué mu ne ma ñoom ñaari rekk la xam mais sama maam bu góor moom mu ne jotoo koo xam waaw moom si kap karab la toogoon waaw si nijaayam moo uti liggéey si sama yaay sama maam bu jigéen moo tax waa wax bi daal awa ñang tuuti ma bëgg ngeen fàlle ma ngir yàlla tax waa jàppale ma pour ma retrouver ko Assane Dieng bu dee mu may dégg franchement parler bëgg naa xam kuy sama pap na ma jàppale rek mu munta nekk si àdduna na ma wax waa bëgg naa kaa xam numéro franchement bëgg naa kaa xam trop trop moom lu ma wax sama yaay mu ne si moom la nekkoon di liggéey si sama maam bu ma tuddee noonu si moom la nekkoon di liggéey waaw fii dakaar mais mu ne ma seen famille Pikine la nekk Icotaf waaw mais papa sama maam bu góor moom xamul tuuram waaw si mère mère bi rek la xam waaw bu ma tuddee ma bëgg nga jàppale ma ngir yàlla tax ma retrouver ko bëgg naa ko trop waaw. moi franchement parler Seynou Seynou waaw daf ma jur par accident waaw ñoom foofu la laa liggéey foofu lañ xamante ne maak euh, sama maam sama turandoo boobu waaw ak sama pap kër sama turandoo fu mu daan liggéey foofu la xamante ne ak sama pap foofu la daan liggéey foofu la xamante ne. man sama yaay lu ma wax waaw mu ne Delclair la daan liggéey Delclair la daan liggéey. ci sama kër maam mooy kuñ ma tuddeel maam Kati Camara waaw maak sama pap fa la nekkoon ñun ñëpp fa la daan liggéeyee waaw bu mu liggéeyee foofu ba jële ëmb dellu ba si kap karak si nijaayam dañ toog foofu mais sama papa nangu na ëmb bi bu ma wasinee si la ma tuddale yaayam mu daan liggéeyee waaw bu mu liggéeyee fa mu daan liggéeyee moom la ma tuddale maire bi làmb rek ma tuddel sama maam moom la ma tuddel mais sama papa nangu na bañu ko musu koo bañ wala ma expliqué mu ne koo bañ waaw kooku la ma tuddel léegi bu mu demee si Cap Karak toog foofu jóge fa dem benn barak jóge benn barak si la dem Casamance si la réeru ak sama papa ba léegi ci santewuñ waaw moo tax ma koy wër bëgg naa trop xam ko mi ngi noonu. bëgg na xam papaam de. mu ne yaayam nu mu tudd. yaayu waaj yaay moom kati kamara. non moom yaayu waaj moo tudd maam kati kamara. Ah, maamam daal mooy xale bi. maamam daal waaw moo nañu ko tuddee. moom lañ ko tuddee moom mii di wax. waaw moo nañu ko tuddee waaw moom mi ngi tudd maam kati Dieng. papa ji bañu ko. bañu ko woon de ko juddoo bañu ko. Oh, déedéet ah, kon da koo réer. waaw da koo ah. réer xam nga dañoo déggoo yaay ji dafa doon liggéey ca kër ga. Uh-huh. accident am fa moom mu judd ci. mu tuddee ko maire bi ne borom kër gi uh-huh. léegi nag moom mu demoon Karak après mu dem benn barak après ah. mu dem Casamance. Hmm. gisantee tunu nag xale bi màgg nag di wër baayam. mu ne mu ne mu ne fa fa fa fa baayam doon liggéeyee. da di Derklé. non Derklé la la la yaay ji dëkkoon. maam Kati ah, Camara moo dëkkoon Derklé ak papa euh, liggéeyee. Mhm. ci la fa lii d' accord yàgg bi euh, waa ji mi ngi tudd Assane Assane Dieng. su que nay bàyyi di wax daf maa jur par accident. yàlla du accidenté. fu doom warta judd ko fa def. ah yaa wax lii tey non c'est la vérité. <laughs> ah xam nga boo nee par accident te nit bu wàccee ci kaw suuf yàlla ko wàccee te yàlla du def accident waaw bërki démb loo leen wax fii ba ngeen bañ bañ waajee coow ki mën a yéen muy euh, yenn ëmb yi ñu autorisé ñu koy dindi waaw waaw mais ah ban xam nga diine yéen ñeen waaw bay wax la rek bàyyi wax la rek xam l'islam ustaas a ngi nii toog bu ñu fi naree werante moo ko mu ñëw l'islam àndul ak dalay loraange waaw moom oustaz Mor Thiam nee na loo yëkkati mu diis tegal ci suuf de lislaam waaw bu fekkente ne nit dañu ko tëj ci néeg duma ko yegg ci kawam. waaw ëmb sosu ca. waaw suñu borom la soob de. waaw d'accord na waaye xale booba. moom su ko bàyyee mu juddu. waaw heure bu ko xoolee day fàttali ko naqar wa. mais bi moom mooy munul wax xale bi kii mooy sa baay. mais moom indiwu ko fi de. waaw d'accord na li ko fi indi moom mi bëgg ko moom mi ko bëgg a avorter. moom mi ko fi indi. ah moo fi indi gone ki. Mhm. non boo ko wéeree foofu rek. ah foofu laa koy wéer euh, ndax yàlla foofu la ko. yàlla la neex. mais mais d' <laughs> waaye yàlla wàccul dem ci jël pompis bi dal ci la essence daf la yow nga def ci essence pour mën a daw déedéet yàlla nit nit la sax. ba tey mais benn bi la rek. déedéet nit ni rek déedéet. mais dama ne ban. yàlla sàkkul oto de Ndiaye li muy wax nii. Ndiaye li muy wax nii maanaam. bon sens lay waxee ak xel mu sell. waaw ah kon man sax moom xel sellul daal. non maanaam bon sens maanaam ci lu rafet laa wax. <laughs> ah yaa ngi passé avant quoi. waxu comprendre dama ne. dama ne ah, te loolu yàq nañ booy formanté <laughs> formanté nañ booy. ah non dama ne ban ban déggoo ma dama ne Ndiaye. Hmm. ci maanaam ci bon sens lay waxee mais ci diine diine eh. nangu loolu passe waaw. Euh, non sant partout. partout ah, waaw dundal jàmm ak jàmm ak Ndiaye kii nii agent croix rouge la. waaw. saag daal wenn saagam la mu la moo réer bu def passeport def ay kartam euh, comité international Croix-Rouge international euh, xaalis bu en dollar ordinateur portable am ak iPhone am ak dossier classeur am yëpp maanaam léegi li muy liggéey xaalis ba ak léegi dafa réer te dafa ñëwoon mission rek Pape Demba Diaw mi ko gis nañ ko dimbali ndaxte ñii moom suñu ñàkkee seen yooyu moom rek day day day xaw a dis ci ñoom. fu muy liggéey waaye <laughs> dimbali ko rek ñaanal ko mu feeñ. ay ay dollars fu muy feeñee. ci non non dafa waroon voyager le Euh. passeport ba dem. xaalis ba dem passeport ak yooyu daal tur bi. nu mu tudd nga ne. Pape Demba Diaw. waaw ah, Pape Demba Diaw. waaw na ko na ko gars yi dollars yi moom jamono ji am na sama benn xarit boo xam ne pharmacienne la. Ah. Euh, Thiès moom ab xajamoo réer. temps yëpp mi ngi ma ko eh. yëgal euh, yëgal waxuma ko daf maa mere mais daal xaj bu ndaw la. xaj bu ndaw la boo xam ne daal. Yacine Pouy. <laughs> waaw service yenn yi bu ko bande annonce dama bëgg ngay. coupé coupé direct bi. de dëgg ak ah, xaj xaj moom mere na ma ndax xaj bi xaj bi rek xaj baa ngi nii xaj bi nii nii xaj bii la. Hmm. xaj bii moo réer. xanaa tegul tegul rançon. waaw Thiès la defe naa Thiès la réer ah. non hmm? xaj ma ne ko xaj bi xajee na de. gis naa ko xajam réeroon na mu teg ah, rançon. xaj bi taxaw waaw ah, gis naa mu taxaw xaj bi kay moom. jox ma ko ma dugal ko ci page xalaas. Ah. Euh, waa ji waa ji xajam réeroon. waaw 500000 la teg rançon. waaw si suba sa xaj ba tey na teg rançon. am na bu tegee rançon léegi ko de. maa la ko wax. waaw na waaw. d' accord ma ne Assane Dieng mi bu dégg wala ay mbokkam. nañ jokkoo ak ñun ci 77. 150 17. Ah. ak waa xalaas yëpp ñu ñu daje fa. ñu jéem dimbali xale bi. parce que kii daa jëloon taxi de. ah d'accord gis bàyyam parce que kii wër dafa jël taxi. Thiès waaw cees waaw ku fa ku foo ku foo jël taxi kanguru. Ah. bu bees wala nga am koo ko jox. Ah. bu bees nga xam ne waa ji ko jox njool la rasamaan. am cicatrice. waaw nangu ju ko tax am agresseur la. déglul. Hmm? dama jógee sama kër. jëm banque bu ñuy wax bi nekk côté hôpital régional rond point hôpital régional banque bu orange la. dama génn dugg ci banque bi génn am benn dossier bu moo fa jël génn rek benn taxi traversé voie bi ñëw taxaw sama tànk dama ma soxna si foo jëm am na benn waay bu wàcc taxi bi nag ne ma soxna si foo jëm ma ne ko HMO de Dakar mu ne ma yéegal ma yéeg après mu jëm côté course ba maa ngi naan ko mënoon nga jàddee nii rek moo gën a gaaw ne ma ndox yi laay moodu sama oto bi dafa bees moo tax. léegi bi ñu avancé ba mel ni ku jëm côté course ba ma ne ko sëñ bi fi ngay dem sori na mu ne ma ndox mi laay teggi benn koñ boo xamante ne nii yoon bu tàlli la nii ginnaaw hôpital régional bi noonu mais yoon bu tàlli la te gudd la dafa am benn maison abandonnée bu nekk foofu ci côté bi ñun daal dañoo yegg ba foofu rek mu gaare côté boobu juste côté bi ma toogee woon buntu bi la gaare foofu ci buntu buntu kër maison abandonnée bi daal di ne ma xaaral ma xool sama capot bi ma ne ko waaw. mu dugg xool mu ñu gee wàcc xool kapo bi te ñaat ko ñëw côté bi ma toog buntu bi nag soxna si wàcc ma ne ko fii lu ma fii def heure bii lu tax may wàcc fii fii nga xam ne ak tali bi mu sori mu ne ma tax wàcc bi ma wàccee mu ne ma loo yor ma ko yor ma dara mu ma indi ngay génne ma ne ko yoruma xaalis sañ ma ne ma xool sa poche ma génne poche bi mu xool may gisul dara mais par la suite instant bi may laaj sama saag lu ci nekk ci la benn gain boo xamante ni dafa doon naan suñu seen nag mu lem sama loxo bi après wàcc wàcc balcon am rek daw si di ko jub rek mu daw mais bi mu dawee dama tiit ba jàpp ma matricule oto bi mais waa ji ñuul na njool na ñaaw na def ay njañ yu yoo xamante ne nag ba dafa am benn marque ci wetu bët bi ñu ngi ko ñaw ñaw bu rëy ci wetu bët bi ba pare mi ngi def benn tatouage ci loxo bi. Euh, oto bi taxi kangourou yi la. mooy ñuy ubbi tiroir bi en plus euh, onze heures jàpp midi la woon heure boobu la woon. sama sama dëkk ba la xewee. Thiès. <laughs> yóbbuluñ ko dara. <laughs> yóbbuluñ ko dara. mais sant yàlla mais xam nga li ñu joxe également du takk. waaj dafa si cicatrice ci kanam dafa rasame bu ko neexee mën naa watu dugg ci dëkk bi defaat la muy def. waaye te ko jox oto ba fekkee dañ ko ko jox waaw fekkee dañ ko ko jox wala ñu xàmmee oto bi mais comme oto mburu yi de mhm. ginnaaw ko nii ko waaw nañ ko xam bu bees ah bu bees njaay na sant yàlla oui ban fan yi passé am na benn femme bu ma fi indi woon bu noon jaay boppam ba dajeeg benn waaye mu jox ko chèque bu baaxul bu baaxul mhm. topp na ca ba sonn mhm. jotu ci dama nañ ko ma laajoon ko nag benn question ni ko lu la dugal ci lii. Mhm. pour mu bàyyi ci mu yamale ma. waaw mhm. <laughs> ba si internet yi reprendre ko di di di di ko kii. maa ngi koy fàttali ndaw soosu nag temps yi yëpp mi ngi ma doon waraat ba dañ jokkoowaat démb. Mhm. yëf ya la bëgg a ba. moom ci boppam jaay bi mu doon jaay boppam. ma ko doon laaj lu tax nga koy def. ci la ma expliqué li lu tax mu koy def ak lan moo tax film mi nii mu jël décision génn ci ndaxte nee na day bëgg a dee te li muy def baaxul. toog na yedd nañ ko yedd na boppam bëgg ci arrière. baayam da ko daan ànd ak yaayam divorcé bàyyi ko moom mooy taaw amaat na dafa def ay jigéen rek jigéen ñi yooyu nag ay xale lañu moom moo ci xaw a dëgër ñëw ndakaaru di jaayante di jàppale. yaay ji film mi dafa feebar. léegi nag loolu nee na juróomi at a ngi mi ngi jaay boppam. di yónnee yaay ji muy faju di leen yónnee ñuy dund. waaye neen bi émission bi passé ba léegi ba benn xaritam yedd ko mu yar xaritam boobu moo ko fi yabalaat. déglu ko Ndiaye. dama toog xalaataat ak sama xel bu baax a baax a baax xalaat pour nekk ak sama conscience tranquille feeb naa wéet naa fenn am na lii ñuy may def nii jëmul kër jëmul kanam te parce man jigéen laa te ëllëg ñaan naa yàlla am jëkkër am samay doom fondé sama foyer gérer sama foyer. waaw yow yaa yow yaayu femme bi nga xam ne yow yaa amoon problème ak. man maa amoon problème ak waa ji ku ma joxoon faux chèque bi. dama dëkkoon mu dëkk ak HLM Grand Yoff man la. voilà léegi yow kooku noo mujjee ak moom. ba ba léegi joxoon ma sama xaalis dama ko bàyyi ak yàlla. waaw léegi nag ma bëggoon tonton Ndoye. ngay ngeen jàppale ma te yàlla rek tax jigéen kon daa bàyyi ma ko lii laay dund jamais te boo gisee tey jii ma ñëw bu retourné waat pour ñëw wax la li man li ma nekkee dama ko bëgg a bàyyi dama toog xalaat xalaataat yëpp suma bopp si àdduna xam ne jigéen laa dama toog sama benn copine mu ne ma lii nii da nga ko bëgg a bàyyi ma ko waaw lii dana ma ko bëgg a bàyyi parce que bu ma ko doonee liggéey ba tey mot ko ma cee bëgg a génne définitivement ma ah boo munoon nga mun a déggante mu ne ko carrément li ma a génn mu ne ma dina la jàppale parce que am na ñu bëri yoo xam ne ma ne ko waaw bu libéré man dinaa ko ko parce que fi mu ne nii sama yaay sonn na gisul ko ko jàppale kenn ku dul man bu weer dewee suñu ko maay teg saako ceeb maay lu def. da sa bopp pour yóbbu ko. pour ma lépp lu ma def yëpp foofu laa ko jëlee. lépp lu ma def ci tabaski bi samay rakk maa leen jëndal yére maa leen jëndal dàll maa ndugal sama yaay jënd lépp xar kese laa jëndal sama yaay parce que boobu aw ma lu ma jëndee xar tabaski. kon am dañ ko mayoon xar. ñaata at a ngi nga nekk ci. ça cinq ans ma nekk ci liggéey bi Euh, juróomi at ma nekk ci liggéey bi. ñaata nga daan am par jour. par jour damay am ay cinquante mille soixante mille francs. Njaay dégg nga loolu. moom laa gisaat ni muy waaj a waxaat. waaw déglu ko. mais dama xam ne jigéen laa. heure damaa war a sëy am ay doom moo tax ma ne lii may def ni jëmu kër bàyyi ma bàyyi ko même bu fekkee damay mag di maq si sax. heure ma amoon sama rendez vous heure bu ma amoon sama rendez vous hôpital ni ma fay gis. samay moomu yaay lañ wala ñu mag sama yaay ñoo xamante ne biñ nekk ci damay dégg koo xam damay def damay dégg naa def naa ci dix-sept ans wala huit ans ci loolu man ñaanu ko yàlla tey ay mag ay mag lañ daal ñëw ma yooyu fii nii nii man ci bëgg a jóge définitivement changé sama vie changé beneen vie mais est-ce que bi instant bi jógee nga ci man fi mu ne nii uh-huh. depuis après tabaski wa tey bàyyi naa ko uh-huh. depuis bi ko def ci passé ba tey maa ngi toog lépp lu ma lépp lu ma am forta lépp lu ma am tey jii des fois damay nit damay naa damaa bëgg a lekk fay ma trois mille wala deux mille cinq cent ma lekk ko ma jël xaalis boobu dugal sama poche te du ci lekk ndékki añ ak reer léegi da ngaa bëgg a jaay bëgg a bàyyi jaay sa bopp carrément léegi léegi lan nga bëgg a def léegi yow soo ko bàyyee lan nga bëgg a def man coiffeuse laa coiffure jàng naa ko pendant deux ans six mois def sama examen accéléré def sama stage bi ma defee sama examen ci lañ ma defee sama diplôme ndaxte dañu amoon moo taxoon sama diplôme bi la kaale léegi nag man dama bëggoon ministre de la femme wala Matar Ba wala première dame képp ku ma si mën a jàppale ngir a suur ci barke Seydina Mouhamed ni turu Mataba du ma ko wax nekk sutura ngay wut te damay man bu xaawi sama sutura looy wax xale yi nga xam ne ñu ngi jaay seen bopp man képp koo xamante ne da nga yor carte de santé nekk ci man maa ngi lay digal nga bàyyi ko lii nii nekkul loo xamante ne liggéey bu baax la sa dara dina yàqu sa yaram dina futi di nga yàq sa àddina te ay jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla am sa docteur. noo def ko man ni ma def ba am carte de santé dafa am ku ma booleeg médecin bi ma koy defal. ma ko ki ma boole dafa yor carte de santé boole ak moom. man pa liggéey bi man pare naa si depuis après tabaski ma doon wuyoo ma bi fay ko jël puce bi ci biir téléphone bi dem ma ko sànni. ah léegi beneen numéro bu bees nga yor. beneen numéro bu bees laa yor. d'accord léegi yow fi nga dëkk yow yaa koy fay wala da nga am ñoo ko dëkkal. jigéen laa man ci sama nekk mais fi ma dëkk man maa ko fay chaque cinquante mille francs laay fay. te xam naa ne weer bi ñuy jubbu nii fay bi du baax fay bi dina métti ci man parce que yoraguma lu ma ko fayee. d'accord léegi yow sa yaay na ni yow da ngay jaay sa yaay mosu koo xam sama yaay sama benn parent mosul xam ne damay jaay sa bopp damay liggéey envoyé leen xaalis te sama yaay dafa feebar wéru heure bu ordonnance man maay dindi ordonnance et bu demee rendez-vous bi bind ordonnance daf may naan am naa ordonnance ñaata la mu ne ma lii ma dem envoyé xaalis yi voilà. te xamul foo jëlee xaalis bi. déedéet xamu ko parce que dama ko ne damay liggéey mais si wàllum salon de coiffure laa yëngu loolu moo tax man bëgguma ko wax li li ma nekkee Dakar bëgguma gis naa ko wax sama yaay ma. par jour dinaa am mën naa am cinquante mille ba soixante mille francs chaque jour. ñun nit mën na ñëw fekk ma. waxtaan ak man lan moo la dugg si lii ma expliqué ko su ma ko ma la expliqué damaa bëgg ñu génn si lii ñu am quinze mille nga ni man maa la ko jox nañ def xam ne ñi ngi di fóotaan ñii di passé ñii di ñii di ñii di mbindaanoog ñoom seen loolu bañu ma ko mais na lii nii mënu toog xaar weer bu dee parce que sama feebaru yaay moo taxoon ma dugg mënu ma toog xaar weer bu dee parce que sama yaay mënoon mën na feebar ci diggante bi ordonnance ñëw du ma am may xaar weer bu dee fan laay lebee xaalis ak ci kan laa koy jëlee loolu moo ma si dugal man bu ma kenn jugé nag du bon moo tax ma def ko du bon moo tax ma def ko wala bañ liggéey wala ñàkk bëgg liggéey moo tax ma def ko bu ma kenn jugé juge moom moo ma si dugal ak ñàkk am ku ma jàppale ak suma yaay ñàkk am ku ko jàppale loolu moom ma si dugal maa ngi lancé appel góor ñi wajur yu wajur yu góor yi nañ bàyyi bu ñu nekkee suñu wajur yu jigéen ñi nekk ak ñoom nekk ak ñoom ba am ak ñoom seen njaboot bi bëri ñu bàyyi leen wan leen ginnaaw su ko defee mère suñu wajur bu jigéen bu dee ba màgg ba toll yenn yi dinañ dem boo du am ku duñu am ku leen jàppale loolu mooy dugal tey jii sa doom tey jii nekk Dakar bu dee góor bu dee tey jii jigéen bu jigéen bi jaay boppam mun na nekk góor góor bi a du mun na nekk baane wala muy agressé maa ngi tuub nag maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi tuubaat ñëpp nañ ma jégal ñëpp nañ ma jégal ci barke Seydina Muhammad na ma ñëpp jégal Njaay sama xarit baa ngi noonu mm-hmm. waaw mi ngi noonu de wax dëgg yàlla. Ah, man de li muy wax li mu wax rek laa koy jottali. waaw mhm. nekk na ci mbir dem na ba xam ne baaxul bëgg na ci caa génn. dañ mhm. ko jàppale mu génn ci. ndax mhm. journée journée journée soixante mille wala cinquante mille neex naa ba. déedéet déedéet. góor moo la ciy génne xam nga journée cinquante mille weer wi ñaata la. un million cinq cent. d' accord et puis du du du chaque jour lay am loolu nag de. waaye déet kii sax loolu ci gën a tuuti ba. voilà du chaque jour quoi. mais Ndiaye. ñoom ñëpp balaa ñu ci dugg xam nañ ne baaxul. ñoom ñëpp de loin. waaw balaa ñu ci dugg xam nañu métier mi baaxul. Mm-hmm. waa Ndiaye yow ñu di jaay jigéen ñi di jaay journaux yi ci kaw tali bi ñu di jaay ay garabu matt ak garabu yoo ñii di fóot kii bu xëyoon un mois wala dix jours wër Ndakaaru wut liggéey da koy am. Mm-hmm. saay mm-hmm. bëgg lu yomb dong nga leen jàpp. loolu ci la bokk. déedéet yaakaar yaakaaruma ko. yaakaaruma ne non mais mais am na ñoo xam ne moo leen ciy dugal. d'accord naa mais am na ñoo xamante ni comme femme bi ni ma déggee mu wax. gis nga ñàkk ci lu mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu jàpp. bokk na ci li ko ci dugal. man de d'accord naa ci benn affaire bu mu wax. Mhm. gis nga Ndiaye dama koy faral di wax. ñu naan dof bi wax na. góor ni nañ bàyyi di say jigéen amoon moom juróomi doom juróom benni doom fase ko abandonné ko. Mhm. soo ko defee jigéen boo xam ne ji boo xam ne jàppul ci dara. ay doomam màgg suñ dee ay góor mën na nañoo dugg ci naka su du noonu pour dimbali seen yaay mhm. su dee ay jigéen mu taaw ba comme kii mën na génn di def naka su du noonu di dimbali seen yaay mhm. xam nga kii dafa wax rek ñaata jigéen ñoo nekk ci ay appartement toog fa liggéey ñu dara xëy ñu gontuñu mm-hmm. dañuy diw seen yaram ba mu rafet <laughs> góor ñi di leen fa fekk de leen fayal appartement loolu prostitution la mm-hmm. après ci leen yor seen yaay yor seen papa yor seen kun ñu yaakaar yor ci ay oto yu naaj nit seen moroom yi di gis leen di leen ñee ñu yaakaar dañuy liggéey kenn xamul di kocc kocc sur li sept huit fekk li ñuy def c'est de la prostitution déguisée mm-hmm. yor seen yaay seen yaay nekk ca koñ ba ñu naan mooy dog buumu gàcce yi mais comment ngay dogee buumu gàcce gi sa doom ja ca Ndakaaru lu muy liggéey am almadi la nekk yor fa appartement fu muy xëy. Mm-hmm. am na ci ñoo xam sax dañuy xëy am nañ liggéey am nañ salaire un million euh, dëggal cent mille wala cent cinquante mille mais am na leneen lu ñuy def. Mm-hmm. parce que képp koo xam ne da góor daf la seet si seq ak yow lenn yi toujours jëkkër jox la dara loolu prostitution la. muy benn benn da ngaa fayee ko muy benn facteur bu koy waral. voilà mm-hmm. waaw mais d'accorduma sax ci ne. cent pour cent. sa yëg jigéen am moom ay doom bàyyi ko. koy waral ndax nit am na fekk ay doom jigéen. plus de dix doom. Mhm. xëy faatu bàyyee ko fi. waaw mhm. leen a ñàkk jom. Mhm. waaw mais gis nga mbir yi li leen ciy dugal dafa bari. benn mooy pression sociale bi dégg nga femme bi nee na day dimbale ay rakam di dimbale yaayam. bu demee di mbindaanu ba muy fóotaan di fay li ñu koy fay par weer wala li muy am par bés munu sax dund ba ci yor keneen cette dame là ci li mu wax elle a beaucoup galéré fanaan na ci station fanaan na ci batiment yi yeggul donc dafa gis li mu jàppe ko bunt bu mën a jaar pour génn ci. Mhm. daaw na looloo ko ci dugal kon kooku nañ ko jugé noonu. mais mais nag Ndiaye man gis nga beneen bi sopp yow ñi ngay wax ay almadeeg ay ñoom seen tey koo ci fëgg fukk yoo ci jàpp. Mhm. ci jigéen ñi yor appartement. Mhm. fukk yoo ci téye. juróom-ñeenti li ñu wax mooy damaa divorcé. dañuy sàggane seen sëy wala ñu tàbbi ci góor gu leen munta yor muy nattu. mais ci gàttal lu mu mën di doon sàggane seen sëy génn ca. ñaar la ñuy doon. gelu jëkkëru jàmbur. baa am ñaareel. Mhm. ba caga. Oh, mm. bu mu ci mënti doon baaxul. yàgg naa wax cela yàgg naa wax njaay ni ah, mhm. jigéen ñi ku ci yor sëf sëy nga am jëkkër ju bon ba mel ni ndoy baan. <laughs> na nga ci jàpp ndaxte bis boo génnee ci sëy ba. gelu gaa yi ngay doon. ci lu leer lu gaa yi takkuñu de surtout ku ci ami doom. gaa yi soo tasee sëf sëy yor juróomi doom takkuñu la de. en tout cas lay def. ñi nga xamante ne Ndiaye dañoo jógee. booy yi dañuy ah. mag ñi dafa entraîné vétéran yi dafa entraîné paa yi retraité yi dafa entraîné. ngay tëgg ay ban seen sëy. ngay tëgg ay par weer. moom mu ngay fay ak par jour. waaw ñëpp pression sociale moo ñu fi indi. donc man gëmuma ne ay pression sociale la gëmuma loolu. ma xamal laa gëm ah, ah. na dem daani dooleem. te hmm. lii baaxul moom kay li mu mooy. 77 50 mi ngi ci kii mënut ko bàyyi. 77. ah 157 ah. 17 mhm. ñaanal ko rek. ñu daje rond point. da nga koy xalaas da nga koy ñaanal rek. waaw nañ ko koo xam ne daal mën nga koo dimbali. Mhm. bëgg ngaa jàppale. menn mag nee na ma. waaw woddu jigéen mooy woddum réew. waaw suturaal jigéen mooy suturaal am réew. waaw jàppale jigéen mooy jàppale am réew. benn mag nee ma. Mm. benn mag mu jigéen nee ma wala benn xale bu jigéen jeune fille bu ndaw woon fii nga toog. Mm. mun ma ñi ñi ñi woddu lool wodd ñi ñi nga xam ne ñoo ñaan ñu woddu leen. ñooy tasaat sunu sa yi sunu sëy. collection parfum de classe Béas KSS trading kër Serigne Saliou borom bazin BK Goldi ak établissement waa kër